kaana nekkoon nañ chagil jéene yi way maam rëdduñ ci dara daal kese la noonu yonent amoon na ko sallallahu alayhi wa ko sol loolooy cosaanu bot ki ko mayoon mooy Najaashi moo ko joxoon hadiya saxaaban wala imaamatun ak kaara goo xam ne tusammaa dañ ko tuddee saxaaban saxaabu mooy niir kon bu kaala mu mel ni asamaan si la teg ci kawam sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu tuddee kaala gi saxaab mooy yonentu xenn na asamaan xooleen leen neex nag xooleen leen toppaloo su tax yàlla bind asamaan boo ko tëkkale asamaan yaa xamut xamoon yonentu xam ne yaa noonu la ëpp sallallahu alayhi wa sallam waaye ba yi bëgguñ loolu ndax kaala goo xam ne tusamma dañ ko dee sahaban sahab mooy niir wa lil huda ñeel na aji jub jub ji alxidami ka tawe ka mooy yonentu sallallahu alayhi wa amoon na kaala gu ñu tuddee sahab xat kaana nekkoon na murqiha di aji yor ko min bayn ak taa fii ci diggante mbagg yi maanaam dafa am benn lang-lang bu yooru ci diggante gannaaw ga da ci xóot xóotu gannaaw mooy diggante ñaari mbagg yi ci xóot-xóot googu foofu la doon kaala ga yoru mooy comme ni bàyyi di kaaloo xam nga bu kaaloo ba pare da koy wàcce ca gannaaw langal ko fa. noonu la kaala gi yonentu meloon sallallahu alayhi wa sallam waaye maa saxa wérut fiyaa ci moom hadisun hadis jaa dikk na minal xudumi ci ñu njëkk ña amul benn hadis bu wér nag buy war a ne kaala gi yonentu amoon na langalangal googu daal waaye nekk nañ noonu la mel gisuñu ci hadis nag ak ñoo maandu ñoom fi zahirin ci lu feeñ xadruha doyeb kaala ba yaaw asru in fukki xasabu la xëy na boo ko tàllalee bu déeneen fukki xasabu xam nga da koy lem sa bopp bi ba pare langal benn lang ca gannaaw dégg nga ci <coughs> xati sama ndëgër laay xëy na dafay oo oh, yonent ne yow sama ndëgër laay aw fooqaha wala kawe na ko bee siirin ci lu néew inda zil xikmi ci borom xam-xam ya nee nañ kaalaak yonentu sallallahu alayhi wa sallam guddee ni fukki xasabu wala mu gën koo gudd tuuti rek moom la daan laxas ca bopp ba daal di langal benn lang ca gannaaw mu wàcc ci diggante ci xut xuti gannaaw ga ci diggante ñaari mbagg ya kon yonentu daan na kaalaw loolu moom leer na xalaa ni sun amoon naay mbaxana saxura yoo xam ne ndaw na laati at mi daa ji taq biraa ci ci bopp bi léeg mu sol mbaxana mu ndaw ko mbaxana yi nit ñi sol nag këpp ko ca bopp ba noonu sallallahu alayhi wa sallam te sol kaala kon moom daan na kaalawu langal ca gannaaw waaye daan na sol mbaxana kaalaam gën ma langal ci gannaaw moo tudd sahaab kooku yaa samaan léeg-léeg mbaxana noonu langal ca bopp ba ki woon teg ca bopp ba mu taq ca bopp ba yonentu daan na sol mbaxana mu ndaw kon sol mbaxana sunna la daan na kaalawu langal saxaabun saxaab mooy niir wa yalbasuhaa dana ko sol min fawqi ca kaw mbaxana ma laa tahimi bul gërëm léeg-léeg mu sol mbaxana teg ci saxaab yaa ngi dégg léeg mu kaalawu te dugul jiitalul mbaxana léeg mu sol mbaxana kese léeg-léeg mu teg mbaxana dal di teg saxaab ca kaw daal di langal gannaaw ga nag mu rafet lool <clears throat> wazaatu azani la ñuy tuddee zaatul azaan mooy borom nopp yi ay ren ba tey kaane nekkoon na yal ba soo di ko sol amoon na kaala goo xam ne zaatul azaan la la tudd lu amoon xëy dafa am ay langalangal mooy ka mooy comme kaala kaala naar yooyu rek nga xam ne dañuy ñaari wàcc ci suuf noonu xam ngeen kaala yooyu waaw yooyu naar dañ ko dañ ko laxas dox yi zaatul azaan waaw am ñaari nopp ñaari lang-lang noonu xam nga loolu kaana nekkoon yel bosa di ko sol mi noon bi ci xare yi zaatul azan nag ci xare la ko doon sol saxaab nag ci jàmm la ko doon sol ku ko doon sol xisabrul xiili gaynde gott yi wala ak tataya wala wala ak tataya mooy gaynde àll bi gott mooy dëkkuwaay gaynde ca àll fata yi nag mooy fa jàmbaar di làqatu yonentu daal sallallahu alayhi wa sallam fu mu mën mooy gaynde ga mooy jàmbaar ma bu xare amaan nag zaatul azan la doon kaaloo sahaab nag moo doon kaala ga naan génne nga ne ko ndax yonentu daan na sol mbaxana yu gudd yu njool yooyu mooy yu wuuri di sol hmm. mu njool lool ca kaw mu ne noono ama tiwaalu waaye mbaxana yu gudd ya fa faqad xadasat xew na baadal badri gannaaw weer wa amma mbaxane yu yu njooli nag kooku gannaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la xew ayaama saydina ci fani sañ sang al mansuuri mansuur jël karami keebaram ak tedd mansuur abbas ci jamonoom ci la mbaxane yu gudd yooyu xew yonentu daaw ko sol mbaxane yu ndaw yu daan takk ci bopp bi la daan sol wala boog mu sol ko ba bay teg sahaab ca gannaaw ga daan na soli zaatul azan mooy kaala yooyu am ñaari lang-lang comme comme ay nopp sallallahu alayhi wa kaala woon annabi yonent bi ci kaala ne zawul islaam yi jurit ñi may zuhum nañ leen xàmmee mooy intimaamun kaala walal xalaas ci kaw mbaxana yi xawlo woo xam it tasimi nañ ko jàpp mu ne mandargaay jurit mooy day sol mbaxana ba pare teg ci kaala loolu xadis ñoo na ci déedéet xadis wax nañ ci waaye daal sol mbaxana rek la nga kaala ga ca kaw loolu mooy melaw julit nga ne ko nuraan yonentu kaaloo mu ne yaanta mu dana kaaloo annabi yonent bi du noon xalaani si ci lu dul kon léegi-léegi mu kaaloo rek te du sol mbaxana wa biha léegi-léegi mu kaaloo ànd ak mbaxana ya maanaam mu sol mbaxana ba pare door a teg kaala ga ci kaw muy saxaab ca yonantu mu kaalaw ba taxaw ndaw rafet mane ne machan boobu moo dàq gisaal jana laa wasu taxallusi borom ak kaalaw borom ak mbaxana kese han ha waris kaalaw albarru ku baax ka lam yahimi gëlëmut wala albarru ku baax su taxallusi kay borom ak xanaa waris mbaxana lam yéy a mut ko mooy mooyit ko rek léegi mu sol mbaxana rek te du kaalaw léeg-léegi sol mbaxana léeg-léegi mu nag sa mbaxana yëpp da yëpp waxal ne lahu ñeel na ko raayatun drapeau boo xam ne tudan danañ ko wooyee waqaab waqaab raaya <clears throat> gañu yëkkati ci xare waqaab la tuddoon mooy raaya yonentu sallallahu alayhi liwaawun am na drapeau boo xam ne sammi tuddee ko alhamda cant tattasim kon da nga meloo wasfal xaqi meloo dëgg wala yàlla mi dëgg kooku nag beneen affaire na drapeau xam ne hamdu la tuddoon hamdu rek la mën a tudd kooku nag mooy meloo meloo bi yàlla da yàlla moom léppam lu mat la te alhamdu moo di taaraki tagg ak lépp lu kawe sallallahu alayhi wa sekkereng ci boo xam ne tax na xamut lenn lu yàlla bind lu mooy ne rek ma nga làmboo baat boobu way min shay'in illaa yusabbihu bi hamdihi xamut lenn lu yàlla xamal lu mooy ma ngay sàbbaal làmboog sant yàlla hamdoo ree noonu beneen tur amul ko lu mooy hamdu loo gis rek hamdu yàlla feeñ na ca hamdu rek moo ree ree goo xam ne dem nañu woon malaayikati yu sabbihoona waaye bi hamdi rabbihim malaaka yi ñu ngay sabbal la sant seen borom hamdu rek moo dem ba nga xam ne alladina yaxmiluuna arsha man hawlahu yusabbixuuna bi hamdi rabbihim ñeenu la ko wër ña sant seen borom kon dara melul ni sant moo tax dara muccut ci lépp feeñ na ca lépp lu wéetal yàlla rek mënoo ko def lu mooy ci hamdu kon xam ngeen ne turoowu turu màgg la sallallahu alayhi wa sallam nag bi noonu la ko tuddee woon kaana loo ñeel ko raayatun drapeau bay daaw bu weex xat dunyat xooyee nañ ko bi ziinatin ci ziina udda konteel safra beneen bu soon falam tuzami kenn du la amoon na drapeau bu weex amoon na it bu zone kamaaloo comme ni nga xamee ne ñeel na ko annaax lu dal xat dunyat xooyee ko bi safraay ci safra xëy dafa zonoon amoon na daal bu ñu tuddee safraaw mooy daal carax tudd na ñaari bot tudd na fii carax kon yonentu amoon na carax sol carax su la kon <clears throat> wasam mi tuddeel fustaatawu tantam ba kon amoon na tànt sant boobu tuddee ko bil kinn ci kinn tas taqi mi da nga jub kinn mooy barabu bu nugg ndax tant bu boo duggee da nga nugg kon yonentu sallallahu alayhi wa amoon na tant ñu tuddee ko kinn sallallahu alayhi wa kon tànt sunna la gis ngeen de yi yonentu amoon daf lay jàngal yi nga xamee ne waaw nit ñaa ngi koy def te yonentu jiit neneen alayhi wa sallam addit <clears throat> konteel ridan lambaay mooy loo xamee yonentu daf ko doon laxasoo amoon na yëri bu mu doon laxasoo burdatan manto kaana nekkoon na yamaan yi tan ka jug yaman nga da ko doon sol fii jumaatin ci àjjuma su ma filee eh, dañuy topp si ñaari feet yi tel tey mi da nga dëppoo ak jub yonentu amoon na mantu bu rafet boo xam ne yaman la jógee buy julli ci àjjuma rek moom la daan sol ak buy dem feet mooy tabaski ak korite <coughs> laxasoo manta mantoom ba rafet lool kon ndeke yére yoo xam ne pour àjjuma la ak feet kooku nekk sunna la yaa ngi dégg mm-hmm. am yére yu yoo xam ne boo julli ji ajjuma nga koy sol wala booy dem juri ji korite ak tabaski amoon na loolu sallallahu alayhi wa sallam imaamatun amoon na kaala goo xam ne kaana nekkoon na sawda di aji ñuul yalbasu dana ko sol fi deni si ñaari feet yi murqiyaha di aji yoor di nag min xalfi yi ca gannaawam iftahi mi na nga dégg amoon na kaala gu ñuul bu daan julli ji nag la daan sol kaala gu ñuul ga korite ak tabaski sallallahu alayhi daal di yor langal ca gannaaw kaala ga kaala ga daf ko doon langal ca gannaaw sol ko mu ñuul mu mu julli jeeg moom sallallahu mu ne nag baydaa yére bu weex wa sawda ak bu ñuul wa safraawun ak bu soon ñu laa bisuwaa na ko sol laakin na man aksar waaye li ëpp al baydaahu maa ji weex fil ma mi ci càngaaya nga ne ko yéen yére la yonentu doon sol mu ne yére yu wutee <clears throat> léeg-léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sol yére yu weex léeg-léegi mu sol lu ñuul léeg-léegi mu sol lu zone waaye li ëpp ci yéreem nag yu weex la ndax julit weex mooy meloom yonentu ki rek ba muy Denga renyan reñaan dañ koo jox soow ak sàngara mu jël soow ñu ko fitra axastal fitra jël nga li nga xam ne ni mooy li yàlla bindee doomu aadama mooy diine kon lu weex si ñëpp diine la si ñëpp mbaax la moo tax yonentu ko sallallahu alayhi jibril xam ngeen hadis omar bi muy ñëwal yonentu lu weex tal la soloon moo tax lislaam bëgg yére weex weex mooy firi couleur jàmm te lislaam diine jàmm la aqallu asbatiha li gën a néew ci langalam ga daalul asaabiin wala boog mën naa ci kaala gi la nekk ba léegi rek li néew ci langalam ga daalul asaabiin mooy ñeenti baaraam kaala gu la ci langal ni mu yaatool dafa toll ni ñeenti baaraam boo tegalee ñeenti baaraam lu toll noonu la daan langal kul waxal ajalluha la ca gën a gudd uh, rëy nag xadru ziraain wala boog fa ziraaun mu ngi toll ni xasabu duna maa xuma min ci ludut nga <clears throat> ay njàqare bu dee jamoo xumatun la langal ak kaaraga la ca gën a dafa mel ni ñeenti baaraam la ci gën a gudd nag ni xasabu la toll bu ko langalee noonu lay guddee mu langal ko ca gannaaw fii nag si wax bi dafa mel yi la nekk di wax nii léeg-léeg mu weex léeg-léeg mu ñuul léeg-léeg mu son xaddit kontal ridan lambaay ak dara bu wert xat kaana nekkoon na daawala hoo di ko awante a ah baabu ay soppeem alxulafaaw ña ko wutu min baari xutbihim seen seen gannaaw njiit ma seen xutba ba mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam yonentu amoon na mantu bu verte gannaaw bu mu génnee àddina xulafaa ñoo ko doonante Aboubacar jël bu génnee Omar jël noonu lañ ko doon doonante sallallahu alayhi wa nekk xalifa rek yaay sol mantu bi yonent bu verte boobu <clears throat> wa haada làq na mil xafatan ak làmbaay kaa nekk na mu warasatan dinañ cu cu ba waras waras lu xonq la woon kon man bi dafa xonqoon amoon na mant boo xam ne cuuba waras nañ ko cuub waras nag gàncax la gu neex xet buñ ko cuubee yére boo ci wisee ndox xet gi day neex lool bu daan dem ci soxnaa mi nag daan jël ndox rek wi ci yére ba xet gay gilli sallallahu alayhi wa ana loolu loo ciy jànge mooy nit buy demal eh, ay soxnaam na fexe sol yére yi rafet amee xet gu neex <coughs> loolu la yonentu doon jàngale foofu bu dem ci waa këram waras la min xa foofu la doon sol wis yére ndax xet gi neex sallallahu alayhi wa sallam yàlla nekk ci moom wala salli yàlla nga julli alayhi ci moom salaata nag julli rabbi sama borom ke diyemi bu mel ay taw nga nekk yonentu daan na njiitlu mu ne waaw law ñeel na ko chiarun njiit laay disaarun ak yére ba ñuy teg ci kaw njiit laay kon sa sol njiit laay ba pare teg yére ci kaw yonentu da ko doon def sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> nga ne ko amoon na simis mu ne waaw wal xamiisu amoon na simis wax nañ ne simis yonentu sallallahu alayhi wa sallam daraan ñëw ba ci takkukaayu monture daraan sol simis noonu rek ku ko bëggoon la nag nga ne ko daraan sol tubay mooy pantalon mu ne waaw kamaaloo comme nu mu ko ñeeree asarawilu ay pantalon waaye nag mu mi askere nañ fi lub sa sol ga alxilaafu wuutee li leer ba leer mooy yonentu jënd na pantalon moom waaye sol na ko solut ko kooku wuutee nañ ci ñi sol na ko ñi solut ko waaye nag am machira waaye jënd ga moom fa saxiwun lu wér la fi suduur ñëw na ci téere boobu ñu wax suduur li xew ba xew mooy jënd na pantalon waaye nag ndax sol na kom sol ko wutee nañ salaama rabbina ñaari xewalu suñ borom alxaaliqi bi aji bind alaxlaa bu kawe alal xàkk mi yàlla nekk ci yàlla mi aji àtte kon jàngal na la yére ya na la kaala ga jàngal na la mbaxana ya nag mu ngay tëj bunt bi di ko mujjee musuwaar ba yonent amoon na musuwaar boo xam ne moom la doon fompee ga mu ne mimma bokk na ci li nga xam ne annabi yonent bi ixtaasahu ixtaasahu war na de làq na ko almindilu musuwaar yam sow dana fomp minu ci moom talaatan kanam nooruha leeru kanam googu ala moo gën a mi dal jële weer yonent am woon musuwaar boo xam ne moom danaam fompee kanamam kanam gu leer googu nga xam ne moo gën a leer sax ak weer kanam ga bis ndey Aysa mos naa réer lépp ci néegam guddi la seet ko ba sonn gisu ko ba yonentu ne tëll leer ay kanam nga feeñal puso ba dafa leeral nit ba ba puso ba feeñ ndey Aysa xool ko ba mu neex ko mu ne wa akmalu minka lam talidi nisaa wala bu ajmalu minka lam tara qattu aynun mu mubarra'an min kulli aybin fa kaannaka qad xuliqta kama tashaa'u mu ne ko ku matee ni yow jigéen mosu koo jur waaye ku rafetee ni yow bët mosu koo gis yàlla daf laa bind nga set ci mboolem ayib xamoo benn ayib dafa mel ni rek dangaa xool nu la neex nga ne yàlla bindee ma ni yàlla bindee la noonu <coughs> karam googu moo gën a leer weeru badar <coughs> am na musuwaar gum ko doon fompee bu defee ñu jeexal bunt boobu war a dugg ci bunt bi nga xam ne mooy jàngale délégation yi ñëwaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam haza in uridu ila islam mastatuma tawfiqi illa billah عليه توكلت وإليه ونيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته